mbokki internautes yi nga xam ne yéen a ngi topp suñu jataay ci seen émission Shukran bi ñu leen di defal ci Dakar Midi point net ñu ngi leen di nuyuwaat rek di leen tatagal di leen wax marhaban bikum ci seen émission bi ngeen xam ne moom lañ leen jagleel weeru koor wu jot di ci fàttalante suñu wàllu yàlla euh, mu mel ni ñu ngi ci xaajtalu koor gi ñu ñaan yàlla ñu mottali ko ak suñu sago te lu ñu ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla na bokk ci yi ñu yàlla di nangul ñu ñaan ko it mu boole ñu ci xaaj bi nga xam ne danañu ko teewe di déwan euh, dénkante bi nag bi ciy njëkk référence bi yëpp dañ koy jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal saxaabaam yu baax yooyu nga xam ni ñoom ñoo ñu wuutu woon ca moom yonent bi sallallahu alayhi wa ndax bari na luñ ko waroon a laaj ci jafe-jafe bu ñu waroon a dunde ci sunu àdduna waaye mu mel ni saxaabatu kiram ridwanullahi alayhim ajmain uutu nan ñu ca laajal ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gën jaarafeti laaj tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn bés mu ne saxaaba yi man yaxudu anni haulaai alkalimat fa yamaluhu fa aw ya man yaclamu bihinna fa qaala abu hurayrata ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana ya rasulallah yonent bi dafa toog ak saxaaba yi ne leen ana kan ci yéen mooy toxalee ci man juróomi baat yoo xam ne bu ko jëfee dana jariñu àddina jariñu àllaaxira wala boog mu xamal ku ku ko jëfandikoo jariñu àddina jariñu àllaaxira sidna abi hurayra ci seen bëgg yiw gu bari ga mu tëb ne yonent man xamal ma baat yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mooy na ragal yo xaraam yi teetal yo xaraam yi teet lu nag mbokk yi dafa xaw a jafe parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne alxalaalu bayyinun walxaraamu bayyinun wa baynahuma mutashabbihatun laa yaclamuhunna kasirun min annaas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li xaraam leer na waaye li daganit leer na mais am na yu nekk ci seen diggante nuroog lu dagan te fekk dafa xaraam waaye am na it yu nekk ci seen diggante nuroog lu xaraam te fekk dafa dagan waaye nee na malheureusement li ëpp ci nit ñi ràññale ñu ñaar yooyu mu ne kon ku ci bëgg mucc na nga fexe ba teet yu xaraam yooyu lépp loo xam ne dañu ne la xaraam na rek fexeel ba teet ko mu ni soo ko defee danga bokk ci jaami yàlla yi gën a baax waaye mu ne ko ñaareelu point bi mu ne ko warda bi ma xasama bi ma xasamallaahu lakk takkun agna naas na nga fexe ba lu la yàlla wërsëgale na la doy ndax ku doylu am nga lu dul jeex moo tax yu yonent bi daana wax ne alqanaatu kanzun laa yafna doylu trésor la boo xam ne du vidd mukk saa boo doyloo rek yëgal ne li nga am mu ngi yokk ndax dangay gis ne am na koo xam ne mille francs la yor mais mille francs yi doy na ko sëkk comme ay milliards ci moom kooku doylu la te lam yar sakkan na waaye léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay denc ay milliar waaye fu mu jekku dërëmu jàmbur rekk mu dem doyluwul lim am doyu ko kooku moom ku mu dal dugg nga ci gaal goo xamul kañ lay taxaw beneen ñetteelu point bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dénk naa la na nga rafetal ci sa digganteeg say dëkkandoo loo man ci kemtalaayu kàttanu rafetal na ko def ndax nag ku say dëkkandoo mucc ci saw ay jullit piir nga moo tax daana wax ne wallahi laa yuminu wallahi laa yuminu man laa yuminu jaaruhu bawaaiquhu yonent bi sallallahu alayhi wa giñ na ñaari yoon ñu ne ko looy giñ mu ne giñ naa ni kii dee gëmul yàlla mooy ki nga xam ne aw dëkkandoom munuñu mucc ci aw ayam su kontaanee munuñu mucc ci am meram beneen bi ci des mu ne ko nanga nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp waaye yéene nit ñi safaan yéene sa bopp jàmm du tax a am jàmm soo ko defee da doon jullit piir muslim beneen bi ci des yonent bi lu tomb bi nga xam ne ci lañuy jeexale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénk na Abu Hurayra ne ko na nga góorgóorlu ci bari ree bul ko di baril ree ju bari dafay woowal xol mbokk yi léeg-léeg nag ñun Sénégal humoriste euh, yi lañ koy xawma léeg-léeg nga dégg ñu ne reeju bari dafay dindi stress waaye luy dindi stress tey wowal xol mbokk yi defe naa jaru ko woon parce que yonent bi daana wax ne law taalamuuna maa aalamu la bakkaytum kasiran wala daxiktum xalilan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax saxaaba yi ne su ngeen xamoon li ma xam mbaa ngeen gis li ma gis da ngeen jooy lu bari waaye da ngeen reelu tuuti mbokk yi foofu la ñuy yëkkatee suñu jataay di leen ñaanal jàmm di leen dig dox daje ci beneen jataay ci seen émission bi ñu leen tàmm defal mu di sukran bi ñu koy def ci weeru koor wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu